nu ngi yum ci làmb ju rëy diggante parcelle ak jàmbur kañ. le premier octobre à l'arène nationale. mbokk yi Kajoor production la ñu ci àndal ak Ibrahima Diop. ouverture de saison de feu. ñaari xale yu lamb yaakaar lool la Ibrahima Diop Kajoor production boole. waa Lansar jàmm gën Sikap Mbao Fora. préparé leen ndax Mama Lamine a ngi ñëw. mu war a jàkkaarloo nag ak Mbowar Mbowar. waa Cambérène daal di ñëw waa parcelle 1 ba 26 kenn du des. gunge seen doom góor a waaye mbokk yi Kajoor production yemuñu foofu xam ngeen gaaroo gaar dina ak Zallo Sa bu ndaw jàkkaarloo fa ak Ama bu Mbewaan Jules Diène jàkkaarloo fa ak Modou Vanda ak yeneen six combats yu neex ci bésu premier octobre mbokk yi lamb ji nag en live pay per view lay doon ci seen affiche point com du xam ngeen seen affiche min ngeen bu leeree ñoom la bu gaawee ñoom la bu rafetee ñoom ciy Kajoor production nee na daal dér di parcelle jàmm gën bu jeex mhm. waaw yan mbër ñoo la gën a marqué ci saison bi Talfa moom marqué na ma lool ren marqué na saison jikkoo yu mbër ji ne muy aborder ay bésam te itam bu ñëwee da xam ne kii li muy def mën na ko mhm. yaa ngi dégg wax dëgg yàlla xale bu ma marqué la ren si saison bi nga xam ne nii moom la ñu nekk moom Talfa mhm. am na nag yeneen xale comme ku mel ni Diop 2 mhm. moom itam mu ngi ci some bu ama am solo waaw mu ngi ci yoonu baax a baax a baax te it mbër la mbër la de nañ ko bàyyee xel maa ngi dégg. waaw ama amaat na yeneen i xale nag. Uh-huh. yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi waat di wane seen bopp. waaw xale bi ñuy wax bint ñi. waaw nekk Fass. waaw nañ ko bàyyi xel def na ñaari combat. waaw ñaari victoire. te combat bu mujj usine bu ndàngal ma la bëree. Uh-huh. te usine bu ndàngal ma partenaire bu réglé la ci contact ak lépp. Uh-huh. ba pare di mbëru mbapat. yaa ngi dégg xool na mu ak moom na ko daane. moom xale boobu tamit nañ ci bàyyi nañ ko bàyyi xel amaat na combat nag moom ak tas yaakaar jamay ko tëgg. pour le 24. mais bon. xale yi ñu marqué bari nañ mais ñooñu mën nañ leen ci cité. waaw mhm. des na yeneen xale yoo xam ne euh, waaw. xale ak mag yëpp kay man kay instant bi mbër rek laay wax. noo gisee Franc ak euh, ci dynamique bu mu nekk def douze combats douze victoires combat bu mu am rek gars yi ne adversaire bi moo ko man ba ci dernier combat am digganteem ak Forza. waaw parce que parce que Franc li problème am mooy Franc ci lutte avec frappe ba mu ko commencé di bëre ba tey du la bàyyi yow nga bëre Franc dafa nekk ki nga xam ne daan ko ci lutte avec frappe man. dina jafe. xalaat naa ko de daan Franc ci li dafa Franc. xaaral ko defe jamono ji. non a ah, ki koy defe dina liggéey lool dina liggéey de. dafa na à tout mën naa ñëw. waaye ki bëgg daan Franc. non dana liggéey dana liggéey de am na loo xam ne daanul Franc de. Hmm. parce que Franc am na gëm-gëmu bëre. Franc mën naa bëre man naa xeex te du foye làmb faraa da du foye làmb mi dama bëgg mbir mu dul foye ci làmb hmm. man loolu laa xam ci moom lit simple ba ma ko xamee ba tey li dafa frappe franc du foye làmb lu toll ni tar fatal ay ni du fowe làmb mooy lan Babacar du fowe làmb ça dire que nay na ci boppam doo ko gis lu bari hmm. te mbër na bu yaxi jóob ko rawale franc woykat bu na mbër bu màgg daan franc dafa ci boppam làmb doo ko gis lu bari fréquentation bariwul yaa ngi dégg il toujours ci lu koy tax a progresser dem ci làmb mhm. te loolu dafa am solo ci un athlète mhm. parce que boo gaawee yëg succès rek mooy yaa ngi wàcc raay bi mhm. am na mbër yu bëri loolu moo yàq seen làmb moo damm seen làmb succès parce que des fois succès wuyu si la wuyu si boo xam ne nii sam waay boo ko lemul toog ci nga bëgg koo jiital di ko doxee yëkkatee koy mbagg ci daanu nga jëm te boo daanu mën ngaa daanuwaat mais Franc. sérieusement par là ku fonk làmb la. fan nga koy xaar moom. Franc fan nga koy séentu ci làmb. Franc fi ma koy séentu ci làmb mooy fa ñuy wax roi des arènes. Mhm. waaw am na fa place. am nga ci moom yaakaar ah waaw maa am ci moom yaakaar. parce que li mu wane la. fulla gi muy bëree fayda gi ak fonk entraînement bi te xam naa ne am na encadrement. Mhm. te it ñi ko wër ci làmb ay bopp lañ am na ñu ma ci xam. Mhm. ay anciens lutteurs yoo xam ne dañoo bëree ba bàyyi ñoo ko saa compter nga topp Modou Lo fu Modou ne nga ne lu mu la def loo nga def ko Lamine Modou Lo ku ko nangoo dégg ko mën ngaa dégg dara ci làmb mhm. lu leer laa lay wax mhm. parce que yoon wa yombul ci moom te gis naa ne bàyyi na Modou xel lool ngay dégg waaw bàyyi na ko xel de waaw wax wax nga nga ne ci roi des arènes nga koy waaw waaw bu yàqul yoonam bu yàqul yoonam léegi yan mbër nga gisaat parce que maa ngi ko doon wax keroog bu ñuy nekk Touba. Mhm. bi ñuy wax ba wax Diop 2. Mhm. man ma wax li nga xamante ne moom laa gis ci moom. Mhm. ma ne mbër dina day ñëw ci làmb. taxaw taxawaayu nekk roi des arènes. bu weesoo Franc yow ñen nga gisaat ñii bu ñu yàqu seen yoon kenn nañ ko waxee mën nañu dégg daal. bari na parce que tey euh, ku mel ni xale bii nga xam ne nii. moom laa tudd léegi mooy talfa mhm. bu yàqul yoonam mhm. mën na dem mhm. sori tuuni siñoor bu kër mbir oh. bu yàqul yoonam mbër la de mbir a bëre parce que mbër mooy ki am taxawaay. ki am taxawaay bi. am nañ taxawaay bi am nañ doole bi bi am nañ doole ji et am nañ technicité bari am nañ technique bi waaw waaw. te ay mbëru simple lañ dañuy compétir dañoo yor doole. ñoom xaaruñu benn combat. Tony Tony Junior bu Kër Mbir. maa ngi koy xaar xale bu mel ni Serigne Ndiaye numéro 2. moom it bu yàqul yoonam. mu ngi ci yoon wi. yaa ngi dégg. bari suuf de moom yaa léegi. ci la bokk. bari nañ. soo leen doon lim duñ fi bari na ay xale yoo xam ne nii tey relève lañ bu leer nañ ci làmb. waaye nag ku ci nelaw lu toll ni tar fatal ay ni ñu bi max la ci piscine bi nga des. <laughs> ci ndox mu bule bi ci ndox mu bule mais nga jëm kay. moom kay nekk ci. bi ci des itam del na butu tey na butu te itam gën a moytu micro yi. wala wala nga xam ni nga ciy wax. wa waaw mooy mooy mooy mooy mooy mooy moytu micro. waaw ah. kii moytu micro mooy kii xam li muy wax ci micro. Mhm. mel ni Babacar rek ah bu mel ni Jackson. Hmm. Birima la moom mu ñu ngay wax boroom benn baag bi yaa ko dégg ciy wax ah baax na. Mhm. parce que làmb dafa dafa soxla kumpa. Mhm. làmb am na moment boo xam ne kumpa la di soxla. kumpa gi boo ko dindee rek boo ko weeree rek yàq nga ko. Mm-hmm. te defe naa tey ñoom ñu ci bëri bu ñu bëree ndoowul ak ya tamit fekke nañu maanaam jamonoom. waaw doxalinam doxalinam. comportement am comportement am te comportement Yaxya boobu lu jig mbër la nag. ah oui. billaay lu jig mbër la. ah mu ko abordé sa carrière daan ak daan ak daan sunu borom a ko yor waaye comme moom la mu waxoon gëmu daanu daan la gëm. yaa ngi dégg mais ku abordé noonu sa carrière nga am talent doxe noonu mën ngaa dem sore sore sore sore ak yeneen i xale bu mel ni Doudou Sané tamit ku marqué saison ren bi. waaw ah. trois combats def trois victoire. waaw te poids lu super lourd la. Mm-hmm. moom du day dugg. Uh-huh. nu neexut a téye. waaw ndax ku ku mbul yaama mais ca teewaawoon la xaw ma. Mm. loxoom yu diis yee. waaw dóor yi mu dóor duudu ak remise ba ko duudu delloo mu toog. waaw ah Lamine. làmb ji am na relève de. am na ay relève. bu wóoree wóoree wóoree wóor. mais meilleur lutteur. meilleur lutteur ren. waaw meilleur lutteur nag kenn lañ koy jox. waaw meilleur ballon d'or kenn du ko jox ñaari nit. waaw meilleur lutteur day man su ma ko doon su ma ko doon joxe wax dëgg yàlla. Mhm. moom su ma doon joxe ren meilleur lutteur moom bu fekkente ne ci ci làmb dóor bii la. Mhm. ah wax dëgg yàlla man damay xool. ka nga xam ne moom moo ëpp lay victoire. Mhm. man ma jox ko. muy kan. te Doudou Sané yaakaar naa bokk na ci ñëpp victoire ren am na ñetti ndam. Mhm. ren ci saison bi. Mhm. waaw kon nag am na ñu ko bële ndam de. comme ñan. Diop Dóor mi nga wax sànq. Diop Dóor ren ñaata combat la. 4 combat 4 victoire. waaw kon xam nga Diop Dóor moom itam mën na caa bokk. <laughs> kon daal man sama meilleur lutteur man teguma ko ci VIP. waaw ah, déedéet. man xam nga des fois gars yi nañ ma baal waa ANPS maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Mm-hmm. des fois dañuy joxe meilleur lutteur ñoom teg ko ci wàllum VIP. déedéet te pour man war demee noonu déedéet. meilleur lutteur soo koy jox nit ki da nga war a pour ma pour man bokk na ci nga. kon mais ANPS est-ce que am na tey ñoo xamante ne ñu ngi ci làmb ci carrément. ah xanaa ñu laaj ñu laaj Abou Ndour wala Grand Khalil wala Bour Guéwél. mais ah, aboo nga fa maîtriser ANPS dama ko yaakaar ni. waaye man daal li ma xam mooy meilleur lutteur moom mënoo koo joxe fekk benn Diop de bu def 4 combats 4 victoire nga ne ko bokkoo. ah oui vraiment Diouf Sané bu def 3 combats 3 victoire. nga ne ko bi performance la laaj. yaa ngi dégg ah. man ci côté yooyu lañ ko war a joxe quoi. Ah. mais pas question rek VIP rek la ñu ciblé pour pour fête bi quoi parce que xale yi dañ leen a war di boole ci maanaam événement yooyu. yaa ngi dégg fête yu mag yooyu ñu ñëw toog mhm. parce que loolu day leen di maanaam day nekk lu leen di encouragé mhm. et puis day gën a seen ay morom mhm. yaa ngi dégg pour que ñoom tamit ñu xam ne que ah tey fee duut saane toog wala fee jóob de toog wala fële nga xam ne moom la beneen xale toog man kon dina reyante sama quatre combats yi ma am wala dinaa fexe am ko combats pour mën fa dugg loolu tamit yaakaar naa ne xel da koy nangu bu baax a baax a baax baax a baax nangu yum ci laa bu jurëj diggante ak le premier octobre à l'arène nationale mbokk yi Kajoor production la ñu ci àndal ak Ibrahima Diop ouverture de saison de feu ñaari xale yu lamb yaakaar lool la Ibrahima Diop Kajoor production boole waa Lansar jàmm gën Sikap Mbao Fora préparé leen ndax Mama Lamine a ngi ñëw mu war a jàkkaarloo nag ak Mboor Mboor waa Cambérène daal di ñëw waa parcelle 1 ba 26 kenn du des gunge seen doom góor a waaye mbokk yi Kajoor production yemuñu foofu xam ngeen gaaroo gaar dina fa jàkkaarloo ak Zallo Sa bu ndaw jàkkaarloo fa ak Ama bu Mbewaan Jules Diène jàkkaarloo fa ak Modou Vanda ak yeneen si combats yu neex ci bésu premier octobre mbokk yi lamb ji nag en live pay lay doon ci seen affiche point du xam ngeen seen affiche min ngeen bu leeree ñoom la bu gaawee ñoom la bu rafetee ñoom cëy Kajoor production nee na daal dër di parcelle jàmm gën bu jeex